24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da bu ñu nee góor ngóoraa tax. Amis internautes de Sunugal c'est un immense plaisir de vous retrouver euh, ci suñu ay programme comme niñ koy baaxoo di defee nag saa su yàlla sàkk rek ni leen lépp loo xam ne actualité la fait divers tolluwaay réew mi waaye tam dalal ay boroomi xam-xam tey ci biir invité de la rédaction dañu dalal koo xam ne miin na kër gi jaar na fi jaarate fi waaye à chaque fois lépp dañu koy waxtaanee ci li nga xam ne moom moo di euh, langu politique bu ñu nee kooku mooy kan nag moo di Abou mbay le président du mouvement Réccu Falmaki moom lañ dalalaat tey Abou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax euh, Soxna Awa donc euh, di nuyu seen internet yi donc internet yi ñuy seetaan via sunugal point vingt quatre. Mhm. donc di nuyu sénégalais yi di leen masaw bu baax a baax a baax a baax. Mhm. am mbégte la tey Abou. waaw mbégte boobu yëpp dama leen koy delloo donc euh, di leen remercier bu baax aussi seen disponibilité. Mhm. ak aussi occasion bi ngeen may may ma waxtaan ak sénégalais yi. donc lii c' est important te je vois que macha allah vous faites des progrès macha allah donc bokk naa ci ñu njëkk euh, ñuy invité ci kër gi. donc boobu ba léegi nag coloré boobu. Mhm. ñu ngi ko jàpp parfois sax ma ni man maa njëkk yéegal vue yi <laughs> tooñ Aliou ci cadre boobu. Olof Ndiaye nee na ah. la bëy daan dundee ba sax sikkim mën na ci dund ba de te comme kër gi sa kër la te jig nañu jig na la. absolument voilà nañu ko tee rek fexeel ba boo demee présidence bu ñu fàtte rek. <laughs> merci beaucoup mbégte lay doon ñu ànd ak Abou Mbaye comme ni ma leen ko waxee ci sama njaal benn wax mu nekk président mouvement Réccu Falma ki sonn nañu ci récc fal Macky bi ba tax na tey moom question boobu duñ la ko laaj. lu tax mhm. ngay réccu yooyu noonu mais vi vi ko gis nañ dernièrement ay changement yu nga xam ne def nga mhm. ko. Mhm. maanaam jóge ci point. dem ci beneen point. parce que gis nañ récemment li nga xam ne am na ci côté politique bi. mu di ay coalition yoo xam ne jot na fi juddu. Euh, gis nañ fi euh, yeewi askan wi gis nañ mm-hmm. fi coalition bi nga xam ne PDS def na ko ànd ak CRD ñoom de Croix et gis nañ mm-hmm. itam ki nga xam ne mm-hmm. moom moo di président Bougane Gueye genn ci yeewi askan wi dem ci li nga xam ne moom moo di gëm sa bopp bu ñu diggee foofu dañu gis abu mbay moom bokkul woon ci euh, Yewwi Askan Wi mais mhm. après Bougane Gueye bi mu génnee mhm. dem ci gëm sa boppam dañu gis abu may mhm. dem tafu ci wetu Bougane Gueye lan moo waral loolu waaw jërëjëf ci question boobu ndax ñu bëri dañ ma koy laaj euh, d'abord man damay bëgg lépp lu may def ma dem ci ak euh, ni ñu koy waxatee cohérence maanaam dama bëgg lépp loo xam ne dama ko diggoon sénégalais yi démb ne falaa fa falaay jaar ñoom ngir ñu soppi maanaam situation bi ñu nekkee tey jii nii jamono ji metti na façon métti bi nga xam ne ñun dañoo war a arrêter politique politicienne politique politicienne muy lan muy wax loo gëmul démagogie mm-hmm. tey jii nii su ma neexoon euh, xam naa nu gars di def ba tey jii ñuy wax ci ñoom loolu duma ko def ay politique bu buzz boobu damay bëgg a def et pourtant soxla nga ko parce que da nga bëgg a doon président en 2024. waaw mais mais on est dans logique. mais cest que bu ñuy tabax dañuy tabax lu dëgër li nga xam ne ngelaw bu ko fa fekkee du daanu. Mhm. mais boo tabaxee lenn li nga xam ne ci buzz la xam nga lan mooy buzz yéen ma ko gën a xam yéen journaliste yi. yow lan nga jàppee buzz mooy lenn li nga xam ni euh, temps bi du yàgg bruit bi dina xew. fii ñaata nit euh, euh, ñaata histoire ñoo fi ñoo yi yàggul rek ñu ngi wax soxna soosu doon euh, mooy waykat bi du ma tudd turam xam nga combien semaine la tenir en haleine le le le public sénégalais. loolu fàttali nañ ko yéen yéen a bi lan ngeen jàppee buzz ci politique bi. voilà léegi loolu cest à exemple la dama la jox exemple lan mooy buzz maanaam mën naa joxe exemple ci people bi mën naa joxe exemple feneen mais pour te montrer le buzz ah. maanaam forme bi muy politique muy muy people. c'est la même chose. Mm-hmm. est-ce que yaa ngi comprendre te aujourd'hui on a vu ça sur la scène politique tey jii nii euh, ku jóg gis nga ki koo xam ne dafa jóg pour liggéeyal Sénégal. Mm-hmm. maanaam da ngay mel na comme Abdoulaye Wade maanaam da ngay patient di tabax lenn muy muy dëgër këcc. Mm-hmm. comprendre nga je pense que ne euh, bàyyi ci kër sax bu yar njabootam dina ci wàkkirlu ay ati at ba xale bi màgg macha allah bu dee jigéen. bëgg nit bën kaa bëgg waaye fekk ji nag sonn na ci. Mhm. am na durée c'est-à-dire que loolu la léegi yaa ngi ma posé question ci affaire Yewwi Askan bi mhm. Yewwi Askan bi pour te dire la vraie man bokk naa ci juróomi nit juróomi nit laa la wax de wala mu gën koo néew. Mhm. yu ko njëkk yëg bañ koy nas. bañ koy nas bañ koy nas dama lay dama lay wax bokk naa. ci juróomi nit wala lu ko gën a néew ci juróomi nit ah. Mhm. wala lu ko gën a néew maanaam quatre personnes wala trois personnes yoo xam ni yëg nañ bañ koy nas ñu invité ñu ci. mais bokkoo ci ñu ko doon nas. bokkoon naa ci. d'accord léegi léegi pour te dire la vraie mhm. mais moment boobu euh, li ñu doon nas ak tey ji li xew ci Yewwi Askan bi su ma neexee. ma prendre mes responsabilités comme ni ma taxawee ne rëccu fal Macky j'ai pris mes responsabilités est-ce que comprendre moment bi ñu naan rëccu fal Macky fekk scandale yi nii sax amagul woon. pourtant j'ai dit rëccu fal bël sama responsabilité ne rëccu fal ba ñëpp tey fekk si ma ci. léegi yow askan bi la même chose la ñun ñoo ne dañuy changer système bi. man de taxaw ma décréter ko waaye ku ma gis may dox. ci jéego yu may dox di nga xam ne kii am na lenn loo xam ne metti na ko ci askanu Sénégal dina ko mu ngi koy mu ngi koy saafara ndànk-ndànk di ko di ko jëmmal pas à pas mais yow nga ñëw taxaw sa discours sa slogan loolu il faut qu'on arrête cette démagogie là wax ay discours de euh, nu ñu koy waxatee pour draguer les les les mais yow exactement tu parles avec qui dama bëgg nga pointer doigt ki nga xam ne moom nga bëgg a wax. non cest dire que y a une xam nga y a une xam nga maa ngi daaneel nee naa la. Euh, discours démagogique yooyu noonu. Mm-hmm. moo fi jeex ku fiy changer système d'abord say discours day nekk ay discours yu dëggu. su ma déggee waxu changer système discours donc sama xel day daj Ousmane Sonko parce que moom moo fi wax que day changer système bi te gis nañ ko ci li nga xam ne moom moo di coalition Yewwi Askan bi waaw absolument loolu laa foofu laa doon daanelee mm-hmm. fu ma doon daanelee muy tey jii nii mënuma tey ne man d'accord ma ak classe politique bii nii man de wax naa ko ci ay euh, ay ay samay interview yu bëri ne le peuple sénégalais a été toujours pris en otage par cette classe politique là il faut mm-hmm. renouveler cette classe politique man de loolu laa wax kàddu yooyu laa wax mm-hmm. il faut une alternative générationnelle kàddu kàddu yooyu laa wax moom mu ñëw ne il faut fuser cette classe classe politique là tey jii nii ne dafay bëgg changer système mais on peut pas tey aujourd'hui vouloir changer le système et allier aujourd'hui avec les gens du système ou bien les symboles du système. loolu ban jàngat nga ci am en ban jàngat laa ci am c'est-à-dire que jàngat bi muy lan muy maanaam fi ñu jëm baaxul ni bëggee saafara jafe-jafe askan bi baaxul te man man je prends mes responsabilités de le dire bu dee Ousmane Sonko nii lay continuer waxuma la système de te cest à aussi xam nga lu changer système aussi nekkul sax nekkul rek ci ñu yor réew mi mais ba ci ñun ci ñun. toog naa ci affaire kaaw euh, mars mooy émetu mars yi ne ñun nañ changé suñu discours. Mm-hmm. nañuy bàyyi yenn discours haineux yi xale yi di ci di ci di ci di ci di ci euh, ñàkk seen bakkan aujourd'hui bu ñu nee changé système xam la mooy changé système mm-hmm. pour sénégalais vraiment comprendre. lan mooy système ndax nax bi leen di nax vraiment man je ne suis pas mel na système dafa nekk benn affaire bu grandiose nii ak ne xam la soppi doxalin tout simplement. Mhm. soppi doxalin bi yëpp nag xamal kan la mu ñuul acteur politique muy opposition muy pouvoir ak askan bi mhm. ñun nañ bàyyi sunu discours yi ñu wax te gëmuñu ko. su ma déggee sa wax donc foofu dama lay dagg comme mm-hmm. ça ma mm-hmm. ma ma jéem a trouver foofu naka lay def pour am benn question mm-hmm. poser la ko ñu jàll ci li nga xam ne moom moo di say kàddu da nga nekk Ousmane Sonko dafa ñëw pour changer système bi ñu gis ko muy ànd ak ñi nga xam ne ñoom toujours ñu ngi ci système bi ku ci mel ni Khalifa Sall et autres euh, donc yow foofu da nga gëm ni que affaire bi mënul dem Ousmane Sonko dafa dugg ci euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñu nekk ci système bi parce que dafa bëgg a naxaate wala lan foofu dama bëgg nga leeral lan moo tax Ousmane Sonko bàyyi point bu mu nekkoon sa gis-gis anti système bi ñëw fekk si. Hmm. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir système bi. xamul lu nekk ci boppam comprendre nga mais justement pour pour vous montrer que ne loolu c'est paradoxal loolu ay caaxaan la tey jii nii mënoo ñëw ne d'accord gestion wu euh, PS 40 ans. de règne sans partage te xalifa Sall nekk produit du PS Khalifa Sall boo koy xoolee rek sa xel dem ci PS c'est le symbole du PS nga ñëw ay Malick Gakou ñoo xam ne tey jii nii je pense que ne ñëpp ngi laam-laame est-ce que àndul ak pouvoir beeg yooyu parce que euh, fàttali ko leen yàggul ba ci remaniement ministériel bii nii amoon Malick Gakou kan moo ko teree ñan ñoo ko teree woon dem ànd ak Macky sàll mm-hmm. ay militant ñoo def kii ne ko ne du dem bu demee ñu duñ ko topp moom mu def déclaration ba dee ànd ak moom ba Aliou Sall def déclaration ne Malick Gakou mu ngi waaj a ñëw les faits sont na nit ñi dem jëli vidéo yi cest à que foofu laay waxee ak sénégalais yi tànk yi mu jël baaxul tey jii nii mënoo ne tey jii nii da ngay changer le système ñëw ànd ak ñi nga xam ni système rek lañu ñu mës a nguuroo ci système la ñu màggee yaroo ci am ci seen i alal te xam la mooy système cest système bi dafay créer benn bourgeoisie bi nga xam ni mm-hmm. euh, bourgeoisie boo xam ni ci alalu askan bi la ñu ko sosee donc ñun on n'est pas d'accord donc système bi pour ñu changer ko d'abord mooy ñi nga xam ne dañoo tàmmoon du ñu am liggéey di dundee ci alalu askan bi am ci ay milliards seen njaboot tamit ñëw du ñu am liggéey di dund ci alalu askan bi loolu il faut que mu arrêté loolu nag pour mu arrêté d'abord parti politique li lambar lambar yi nii parce que parti politique xam nga fii au Sénégal lan la. Mm-hmm. parti politique pour kese am ay privilèges ah këral sa parti politique amal sa récépissé. nga commencé bokk ci séddoo bi. mouvement ak parti politique ban moo la gënal yow. waaw cest à xam nga mouvement c'est quelque chose de nouveau te mouvement xam nga mooy lan. Mhm. mouvement mooy euh, su ma koy wax ci olof. muy maanaam euh, jóg teg ay jéego ngir jëm ngir ngir ngir soppi benn mbir maanaam mooy teg ay jeego ngir jëmale Sénégal ci naataange loolu mooy mouvement mouvement mooy ki nga xam ne dafa yëngu mooy koo xam ne dafa sawar mooy loo xam ne dafa am maanaam yëngu-yëngu loolu mooy mouvement yëngu-yëngu. Mhm. mais yëngu-yëngu boo gis dafay am résultat mais parti politique cest à que loolu. dafa bokk lenn li nga xam ni moo ñu gën a sonal ci Sénégal muy maanaam moom mooy xolu système bi parti politique. entre mouvement et parti politique ban moo gën a solide wala ban moo gën a mën a convaincre peut-être ba. Hmm. ki nga xam ne moom moo ci nekk peut-être am ay résultats yoo xam ne c'est c'est hmm. vraiment acceptable. xam nga xam nga naa la wax benn affaire gis nga même bu ñu consulter l'histoire affaire mouvement dafa yàgg faj ay jafe-jafe askan bi boo demee avant le surréalisme en Europe. y benn mouvement bu ñu doon wax mouvement dada dada mooy mooy dara baaxul rien dada mouvement dada mhm. moo précédé le surréalisme après si le siècle de lumières am mhm. après si la Europe commencé développer est-ce que yaa ngi comprendre mhm. te dada xam la woon ay jeunes étudiants la woon yu doon wër Europe di sensibiliser comme le mouvement Ricci Falma ki man mi jiite ko aw ma 40 ans est-ce yaa ngi comprendre donc c'est les jeunes qui sont dans le mouvement am na ñoo xam ne ñu ngi États-Unis ñii ñu ngi Espagne ñii ñu ngi ci dëkk bi fii nii ay ay Touba waa Touba sànq ñoo ngi may woo naan ma ñu ngi may xaar màggal gi. mais mouvement bi euh, Abou Abou mbay amul doole de telle sorte que tey jii mën nga ci basé wu pour nekk président. en 2024 hmm. mouvement bi moom. pour dire vrai amagul doole boobu ci Sénégal fii. actualité boobu. Hmm. xam nga loolu. c'est-à-dire que loolu nekkagul actualité te euh, aujourd'hui man du ma fi nekk. di jiital samay bëgg-bëgg samay mhm. ambition jiital samay ambition au détriment wu jafe-jafe askan bi fu mu toll nii ay affaire u 2024 sori na trop te tamit nekkagul ordre du jour bu mënuma tey moment bii muy waxtaan ak yow waa Kër Massar ñu ngi ci ndox mi mhm. moment bii may waxtaan ak yow mbas bi créé na fi vraiment ay situation yu garaaw a garaaw a garaaw ci askan bi ba ñi nga am na ñeen ñi nga xam ni sax bu ñu añee duñu reer am na ñoo xam ni benn yoon euh, euh, maanaam bu ñu añee tey balaa ñoo añaat yàllaa xam. Mm-hmm. est-ce que comprendre ñaata nit ñooy dundee ci ay affaire yalwaan gis ngeen agression yi ni mu commencé. Mm-hmm. jeunes yi di investir ci ay ay càq comme ni ñu koy waxee parce que amul liggéey. dëkk bi dafa metti d'accord lekk luxe la léegi. Mhm. léegi mënu ma nekk ci condition yooyu noonu. may mhm. xalaat naan way 2024 non. Mhm. donc loolu c'est un peu égoïste man je ne suis pas comme ces hommes politiques là nga xam ne dañoo obnulés par le pouvoir pouvoir yàlla moo koy joxe. léegi bu ñu dellu si waatee en arrière ci li nga xam ne moom moo di yeewi askan bi. bokk nga ci ne nga comme ni nga ko waxee cinq personnes yi nga xam ne ñoom. taxawal nañ ko wala biñ koy nas ñoom yëg nañ. yëg naa ko léegi lu tax nga dem ba ci biir rocceeku. waaw mais mooy li ma am problème mu logique muy lan muy mooy sànq di ma la mhm. tey jii nii on ne peut pas vouloir une chose et son contraire mënuñu ñëw tey ne lii moo baaxul mhm. senegal ba mu nekk Sénégal ba léegi niñ ko yoree moo baaxul muy ñu naan ko système bi mhm. ñu ne léegi dañuy changer système bi bëgg na léegi dañuy ànd ak ñi ni yoroon loolu c'est-à-dire même ba ci football entraîneur sax laa la wax bu essayé tactique bii marché wul da nga gis day changer tactique léegi pour sénégalais comprendre la mooy changer système mooy changer tactique kese comme ni ñu koy defee ci football. Mm-hmm. donc tey jii nii am na ay casting yoo xam ne te tamit ñun ak yéen askan bi yéen ko bëgg yéen a ne foog ñu renouveler classe politique bi ndax am na ñenn ñi nga xam ni euh, independance ba tey ñu ngi fi. Mm-hmm. am na ñenn ñi nga xam ne bu dul indépendance. Euh, Senghor ba léegi ñu ngi fi am na ñenn ñoo xam ne Abdou Diouf ba léegi ñu ngi fi ainsi de suite. mais loolu du ci système bi la bokk ba tey. loolu yëpp ci système bi la loolu laa la wax ma ne léegi ñooñu boo bëggee ne léegi yow da ngay changer système bi àndaat ak ñoom. Mhm. lu ñuy changer dañ koy changer ak du cent neuf. Mhm. da ngay ñëw te tey macha allah Sénégal donc xale yi jàng nañ am nañ xarañte bi nga xam ne tey jii nii euh, boo xoolee euh, li mag ñi di def. Mhm. ñoo leen ko dàq te ñoo leen gën a am wér. te comme ni ma koy waxee tamit politique ndaw moo koy def. man de su ma demee ba benn at bi walaay dinaa bàyyi xale yi ñoom ñu kii mais ndaw moo ko mën. d'accord ci biir Yewwi Askan bi maintenant Sonko rek moo ci nekk euh, koo xam ne moom gis nañ ko à chaque fois muy xeex li nga xam ne moom moo di système bi ñu ci des ñëpp. comme ni nga ko hmm. waxee mën nañu wax que ne ñoom ñu ngi ki biir système bi Sonko moo leen déranger ci biir coalition bi wala Sonko dafa waroon dem moom kase bàyyi ñu ci des wala comme yéen coalition ngeen wax te sang dañuy jóg pour xeex. Hmm. ak euh, li nga xam ne moom moo di parti au pouvoir. Mhm. mais bu fekkee génn nañ ci Sonko ak base politique am ni mu mel Sénégal donc kan mooy nekk ci biir coalition boobu ak coalition bi naka lay demee. waaw xam nga maanaam euh, problème bi nekkul ñi fay des mais problème bi mooy Sonko waru foon nekk. bu fa nekkul fan la waroon nekk. Sonko c'est-à-dire que dafa waroon créer benn coalition boo xam ne. Mhm. coalition anti système lay nekk. Mhm. mais coalition bii mu nekk nii man maa ngi ko tuddee c'est une coalition de contre nature une coalition du système xam nga tax ma ne du système Sonko ci système bi la jógee. mais askan wi dañ leen yeewu askan wi dañ leen yeewu. ci système bi waaw waaw bu ñu nee yeewi askan wi mooy que man sama gis-gis. ci bi ñu mooy yeewaat askan wi mooy mooy yeewaat askan bi dañ leen di gën a yeewu xam tax dañ leen di gën a yeewu. gis nga yeewi askan bi du yeewi kenn dañ leen di dañuy gën a yeewaat askan bi xamul tax ndax seen euh, euh, coalition système bi la lu ñoom lu tàmm yeewu askan bi système dafa tàmm yeewu askan bi. di dund ci euh, ay bëgg-bëggam su Ousmane Sonko c'est un produit système kan moo ko formé ENAM mm-hmm. ENAM c'est le secret de la colonisation est-ce que comprendre mm-hmm. donc tey jii nii ñoom waa système bi ñoom loolu lañ xam doxee ci doxu système bi lañ xam moo tax ñoom ñu def seen coalition du système léegi ñun nag ñi nga xam ne jàpp nañ ni man ki euh, sa question boobu muy nu tax ma ma dem ci ci ci ci ci Bougane mais y a une chose mm-hmm. euh, maanaam man jàpp naa ne mouvement citoyen yi ñooy soppi Sénégal mais du parti politique. moo tax su ma demoon ànd ak ay parti politique ah xanaa mu nekk parti politique yoo xam ni nag dañuy am crédibilité. waaye du ma ànd ak parti politique yi nga xam ne man mii démb maa leen doon wax naan ñoom ñoo yàq réew mi tey may àndaat ak ñoom nit ki da ngay logique. Mhm. munoo tey ah euh, xas kenn démb tey nga koy nga koy nga koy nga koy tàgg. on dirait que mënoo supporter Ousmane Sonko parle-nous un peu. non mais de relation lan moo xew parce que gis nañu récemment ci internet bi aussi. Mhm. ay ay militants Pastef di la mhm. di la saaga. di wax ci yow. Mhm. parce que da ngeen am problème wala lan moo xew sa diggante ak Sonko. non non non non man je n'ai pas de problème man awma problème ak kenn. je n'ai de problème avec quiconque. amuma problème ak Macky Sall amuma problème ak Ousmane Sonko amuma problème ak kenn xam la laa amal poroblème hmm. moi j'ai des principes. nit ci la la am parce que yow yaa jël sa mouvement tuddee la personne de Macky Sall c'est-à-dire que ci gestion am laa d'accord Ousmane Sonko tamit démarche am problème de démarche bi mu am. Mm-hmm. man foofu laa d'accordul ak moom. yoon bi mu jël depuis M m gis ngeen bokkuma m 2 ndax m ju fa nekk ñëpp tamit c'est les gens du système M2D boobu lañ ñëwaat defaat ko yeew askan bi yeewaat askan bi c'est une coalition de contre nature léegi maanaam plus muy dem di nga gis ne am na ñenn ñi nga xam ni sax il com dañuy dañuy gis beneen visage que ne vraiment kii tànk yi mu jëg mu mu teg nii jógul pour changer le système. mais yéen amu leen patience toog xaar coalition bi parce que dañ ko nas rek ñu gis que pëcc bi commencé gars yi commencé di tas. Uh-huh. le cas de Bougane Gueye est ce que nga ak Bougane ci li nga xam ne moom la def. dem ba ci biir bu muy signé sous réserve la signé après ñu gis que ne voilà def na benn communiqué wax ni moom dafay génn ci coalition bi. Uh-huh. vu que yow yaay mercenaire actuellement yaa tafu ci côté donc a. non non non man du ma mercenaire euh, Bougane. Mm être que ne on n'a pas donné la bonne information par rapport ci ni mu génne parce que y trop de manipulation dans ce pays là. léegi jox ñu léegi y a une la vraie la bonne information c'est quoi. Mm -hmm. dire que dans Yewwi Askan bi dañoo toog ne présidence bi dafay tourner ci ñett parti Pastef PUR ak kiwu Khalifa Sall. Mhm. mais nag nañu waxante dëgg man du ma dugg fenn fii nga xam ne duma fa am cër. bu may dugg damay dugg fenn fi nga xam ni ak aussi nañu wax ne dëgg Bougane aussi dafa am mouvement bu mag boo xam ni moo ëpp doole sax am na yenn parti politique yi buñ ko boolewul ci présidence yi bu ko neexee ne moom sentirul boppam day génn. doo dugg foo xam ne mais du ay affaire ay couleur. Euh, euh, doo dugg foo xam ne doo fa am cër sa côté ngay wax wala côté Bougane. non maanaam Bougane. Mhm. loolu la wane foofu. da nga gis ne amul doole si parti bi dañ ko suufal. wala wala naka la demee. mais maanaam gëdd biñ ko waroon jox ci. Mhm. ci ci coalition bi te aussi coalition boo xam ni dañoo defar seen coalition ba pare limité ko il a ko que nit ñi di kaas ñuy soog a génn ne waaw yaatal nañ ko moom moment boobu fekk defar nañ seen lépp c'est-à-dire que bu lay woo aussi ci mbir day fekk mbir boo xam ne da di mën a toog waxtaanee ko yow nga nga am ci njëriñ nga jox ci sa xel. sa xalaat ñu jëmmal ko ci. moo tax yow mii kat ci nga bokk. est-ce que gisoo ne noonu la war. politique noonu la parce que war a am wala peut-être moom la am ba tax ñu war ko mën a teg ci kaw Bougane am na Sonko am na Khalifa Sall am na am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo ëpp Bougane doole. ci coalition non non non non à part on se dit la vérité Ousmane Sonko moo ëpp Bougane base. Khalifa Sall ak. non non non non non donc tu ne suis pas véritablement la politique sénégalaise. bien sûr que oui même Pastef c'est une chose c'est-à-dire que Pastef bruit bi yëpp c'est c'est dans les réseaux sociaux. Pastef maanaam la base sénégalaise électorale dafa dafa variable. on dirait que xaaral léegi ma ñëw position parce que. xaaral léegi ñëw c'est-à-dire que naa la wax benn affaire. Mhm. Euh, soxna Awa je chose gis nga électorat wu Sénégal dafa nekk électorat bu variable. maanaam da ngay gis comme benn awa. Mhm. muy muy militaire Réthiou Fall Macky di militaire Bougane militaire Pastef ndax xëy na sama cousin sa cousin la xëy na sa xarit bi nga rus moo la dugal Pastef xëy na. sa sëriñ ne la votel ak pur est-ce que léegi tey jii nii bu ñu bëggee natt ci affaire ay ay ci ci buzz wala ci ay réseaux sociaux dañuy nax suñu bopp xalifa Sall je vous une chose Khalifa Sall borom Dakar la te dakaar googu noonu pois am wàññeeku na donc xalifa nekkul un leader national leader local la léegi nga jël benn pur pur benn af benn doole la am muy pur c'est un parti religieux parce que foofu mën nañ joxe consigne. mën nañ joxe consigne ne euh, dañuy dem ànd ak sëñ bi ñu dem ànd ak sëñ bi mais à part moment bii ma wax ak yow c'est-à-dire euh, ñun. cest à ñun defuñu est-ce que est-ce la neex waxoo lu la que naa la wax que mhm. ñun defuñu politique politicienne moo tax yor nañ ay militants yi nga xam ni nit ñi duñ ci mën a teg bët. parce que duñ ko fësal duñ def politique politicienne comme gars yi ni ñu koy defee ñëw photo ay groupe juróomi nit ne ñii lañ recevoir ak affaire yooyu noonu def ay communiqué ñu lépp lu ñuy def dañ koy def ci dal def ko ci discrétion. mais est-ce que waxoo lu la neex côté boobu nga ni que voilà Pastef ñoom dañuy comme ni ko ñenn ñi di waxee dañuy mbele mbele rek base politique bi ñu waroon am amuñu ko te pourtant. bu ñu bu ñu ñu delloo tuuti en arrière ci élection présidentielle nga xam ne moom la ñu passé. tey bu ñu ko tegee ci yoon. chef de l'opposition mhm. Ousmane Sonko la war a doon parce que mhm. déjà comme sa Seck dem na tafu ji ci wetu président Macky Sall mhm. Sonko moo nekkoon troisième position waaw mais mais y a xam naa la ko benn affaire Bougane Gueye demul woon sax ci li nga xam non non Bougane non euh, non euh, je veux une chose je veux une man je parle pas de tey dem ci côté Bougane mm. vu que parce que da nga dem non non mais mais mais su ma ànd ak Bougane cest dire que war naa mën a toogal coalition bi mais pas Bougane en personne mm-hmm. donc li li sénégalais yi aussi war a xam c'est-à-dire que muy par rapport ak suñu coalition dafa nekk coalition boo xam ni coalition yeesalaat espace politique bi la. Hmm. il faut que ñu yeesalaat ko. coalition bi naka ngeen ko tuddee wala ba tey gëm sa bopp bi. gëm sa bopp la mais maanaam demane la dama la xam nga tur tur kese la. Hmm. mais maanaam da ngay xool jéego yi ñuy dox. mënoon nañu ko tuddee neneen sax. moo tax ma ne la mënoon nañu ko tuddee sax no non non baal turu mercenaire c'est une chose. il faut hmm. qu'on qu'on que tu arrêtes mercenaire ça c'est trop dur. Mhm. voilà voilà donc man je. Ah, non non non da ngeen jugee da ngeen jugee seen seen. non mouvement wala seen parti euh, euh, tey mu ngi maintenir le non gëm sa bopp. Mhm. yow non mais mu euh, waxtaan bi gën a sérieux pour sénégalais yi jëriñu ci. Mhm. voilà. man mi ngi sérieux. non non je veux dëgg jotee nga nga sa mouvement. nga ñëw fekk si Bougane Gueye mu maintenir. noo fekk ñu sa bopp bi mais quoi mais mais ku ñëw ku ñëw ci équipe bu jàmbur kay. ñu maintenir la même nom kay yow. mais awa awa xam nga foofu lu ci gën a am solo. Mhm. li ci gën a am solo nekkul tur bi. nekkul leneen ak leneen xam la moo ci gën a am solo jéego yi ngay dox. nga ci ñu la ci ñu la ci laaj sa xalaat nga koy wax. Mhm. ñu la ci consulter nga koy wax. ñu la ci yónni nga ci dem li ci dox. Mhm. ñun tey jii nii xëy na ñoom ñoo ñu mag ñoom fu ñu ñoom euh, fi ñu nekkoon mm-hmm. ñun tey fekk si na fekk si nañ leen ci mm-hmm. te fi ñu nekkoon ñun démb digoon ko askan bi ba léegi ñu ngi dox ci loolu mm-hmm. te tey jii nii y a une il faut que les Sénégalais arrêtent bu ñu àndul ak ñoom ñu ñuy diaboliser ñun bu ñu bëggoon ànd ak Macky Sall àndam nañ ànd ak Macky Sall ba pare dañ koy assumé kenn du taxaw suñu kanam di ñu wax lu ñu naqadi voilà am nañ fulla bi nga xam ni mënoon nañ bu ñu doon ànd ak Macky Sall ah dañuy ànd ak Macky Sall romb fii kenn du ñu taxaw jàkkaarloog ñun di ñu wax lu ñu naqari mais ay nit du conviction lañ ay nitu kàddu lañ donc ñi nga ñi nga xam ne ñoom mooy suivre xam ma bu baax xam nañ je suis un de conviction waaye Yewwi Askan bi lu tax ba léegi ñu naan naa ñëw parce que ils savent que je suis un homme de conviction donc kon du ku nekk du ku nekk la ñuy la ñuy def noonu il mm-hmm. il on très bien sur cette scène politique là donc y a chose peut-être bojo bojo ñooy nekk di saagaate genre affaire ay faux compte mais il faut qu'ils arrêtent ça man j'ai toujours assumé mes responsabilités waaw samay responsabilité ak sama liberté de temps je l'ai toujours eu yàlla moom ko jox ñu lay ay faux la ñu yor waaw mais ay faux compte la ñu yor di jabolise ci ay tur yoo xam nga foo compte mën nga ko tuddee lu neex. Mhm. mais doo xam kan moo nekk ci ginnaaw mais yow ñi lay saaga ci tur mais mais mais ay waa Pastef fi la wala fan waaw mais waa Pastef fi la. ok waa Pastef la parce que ñoom ñooy def loolu. Uh-huh. ñoom ñooy def loolu man li ma wax c'est très clair. Uh-huh. li ma wax waa seen TV euh, bañ ma invité pose ma question bi dama ne leen non Ousmane Sonko il a fait du wax waxet comme les autres mhm. ñun dañ ko war a wax wala Macky Sall lañ yàpp dañ koy wax. wax waxeet bi mooy que moom dafa bëgg a changer système dem ànd ak waa système dem ànd ak waa système il s'est dédié ba pare maanaam ànd ak léegi am ay ay xarit yu bees maanaam les gens du système. Mm-hmm. léegi kooku dina changer système kooku kay mu ngi ci biir système bi léegi y a une chose ñun ñi nga xam ne bëgg nañ changer système bi. Mm-hmm. ñun on s'est mis à l'écart du système. Mm-hmm. di dox ci jéego yooyu. te sénégalais yi aussi di ñu bàyyi xel ndànk-ndànk ñun xam nañ nu ñuy liggéey xam nañ tamit teewlu bi ñu ciy teewlu ak information yi ñuy am par rapport ak suñu liggéey ak fu ñu jëm ëllëg xam nañ ko bu baax te sénégalais yi dofutuñu kenn mënu leen nax waaw peut-être les esprits faibles rek la ñuy manipuler mais ñun kenn duñu manipuler. d'accord parlons tout à fait d'autre chose à ce qui concerne toujours la politique parce que gis nañ que euh, waa waa waa PDS aussi comme gisuñu woon leen ci yeewi askan wi. Mhm. ñoom gis nañ leen récemment. que mhm. dañu dañu ber seen coalition bopp gis nañ ca CRD croix gis nañ ca ñeneen ak ñeneen. Mhm. ndaka nga jàngatee coalition boobu ak yow pourquoi pas demoo si si bu PDS boobu parce que gis naa la fi euh, ci li nga xam ne moom moo di suñu njaal benn wax ngay joxe benn exemple ba tudd ci président l'ex président du moins euh, maître Abdoulaye Wade. Mhm. Euh, xam nga aw sa dire que moo tax Sénégal dafa neex. Mhm. xamu tax Sénégal neex mais nag cette diversité c'est important mais benn moment y a une euh, man du ma def théâtre quoi vraiment man mais comédie bi ma gis xam nga y a mhm. bu politikoon kenn du ko ëpp ndombal tànk kenn du ko ëpp doole ci parce que fii sunu homme politique ay ay ay ay comédien lañ quoi vraiment parce que man mënuma démb ne d'accord ma ci gestion Wade. Mhm. ma xeex ko man de personnellement Ablaye Wade bokk na ci ñi nga xam ni samay idole la waaye nag mën naa ne d'accord ma ni mu yore woon réew mi mm-hmm. mooy surtout à la fin bon d'accord ma ci ni mu yore réew mi mais c'est quelqu'un qui m'influence beaucoup donc am na sax waa PDS yu naan ma le nouveau Abdoulaye Wade ba ci Karim euh, décembre passé la ma woo lu tax mu gën ma woo dafa am benn maanaam kii nekk seen chargé euh, de la sécurité mooy secrétaire général à la sécurité du ma wax turam ancien commandant de de gendarmerie la mu ni ko mu ni ko jeune bi dafa may rappeler courage wu Abdoulaye Wade loolu moo tax Karim woo ma mm-hmm. loolu même boo duggee ci réseau sociaux yi di ko gis publier woon naa ko et tout voilà maintenant pour ñëw ci affaire ay CRD ak yooyu noonu c'est-à-dire que je suis d'accord ay coalition ñu koy multiplier mais aussi bu mu yàq sa démarche lépp looy def da ngay xool par rapport ak sa logique parce que lu tax ñu naan idéologie ba tey jii nii jamono ji jiitalatuñu idéologie mais da ngay ñëw parce que jamono ji monde de vitesse la léegi tey jii nii dañu toll ci fenn fi nga xam ni jamono projet la projet de société man su ma ñëwee gis ne ma man mosuma bëgg politique moo tax mosuma am carte membre politique euh, kii parti politique ma def observation boobu def benn diagnostic ci sama dëkk di xool di mhm. nekk fi xam ne nee noonu ñii ñoo yàq réew mi mais su may ñëwee ne damay changer système bi dama indi euh, doxalin bu bees mhm. muy mouvement citoyen ak doxalin bu bees maanaam ñu def ñu bañ a def politique politicienne gis nga émission bi koo déglu dina xam ni kii du du politicien parce que j'ai tellement été véridique te bu doon politicien day jéem a wax wax ju neex beneen affaire bi dafa am euh, Wade il a fait son temps Wade fu mu toll nii dañ ko war a ñaanal il a fait son temps te PDS kan mooy léegi la leader xanaa du ku nekk Qatar nga xam ne ba muy ba léegi ñëwul léegi kon nan la un parti bi nga xam mu ngi ci condition yooyu noonu di duggee. ci benn coalition boo xam ni parti yu nekk foofu c'est-à-dire que moo tax foofu aussi problème de démarche am na parce que euh, Thierno Alassane Sall euh, Alassane Sall c'est quelqu'un j'estime beaucoup. Thierno Alassane Sall waaw Thierno Alassane Sall mun naa ne sama grand la sax. Mm-hmm. sama grand la donc on s'estime réciproquement xam naa li mu dajal Sénégal te pourtant taxawul yooxu ko. waaw taxawul di ko yooxu de def na ay lenn li nga xam ni. te maanaam jullit àqan la. qu'est-ce qui vous a motivé à choisir Bougane Gueye Dany lan la am wala ban base la am boo xam ne yeneen moroomam yi amuñu ko. waaw xam nga d'abord Bougane mouvement citoyen la yor. Mhm. man mouvement citoyen laa yor te moom mooy sànq li mu la nee naa la man dama jàpp ne Sénégal lu koy sopp mouvement citoyen la te awa naa la benn affaire euh, Bougane mhm. euh, musuma kaa bàyyi xel mais en 2017. dama demoon dama doon dem di reeri euh, restaurant Le Régal ay 22 heures yooyu may ñëw di dugg si gis vigile bi di buux benn femme man dama yàgg am yërmande ci jigéen. muy buux benn femme. ma ñëw intervenir ne ko grand lan la soxna si taxawal kes ce qu'il y ma non kii day yelwaan client yi xel bi neexul noonu mu ngi yor doom boot ko bëgg naa. maanaam mu continuer di def activité di yalwaan bugguma tamit waa ji di ko gaañ. Hmm. si laan ko soxna si mun naa man ko kaay taxaw na mu ne ma non sëñ bi ñii dañoo bon man maa ngi nii bugaan moom mooy fayal sama néeg xaw ma ñaata at. c'était en 2017 moment boobu amul gul woon mouvement. Mm-hmm. buñ ma ko waxoon xëy na mën naa ko bañ a gëm. ne kii dafa bëgg bugaan wala da koy liggéeyal ak yooyu noonu mais man maa ci teg sama bët ma xool femme bi. mu wax loolu te wérul si yaa ngi comprendre en 2017. mais léegi y a léegi nag non dama la expliquer mm-hmm. c'est-à-dire que fii lii ma la fii ma point bi ma nekk nii c'est tellement important c'est-à-dire que tey jii nii askan bi dafa jot ñun euh, bu leen di laaj seen baat ñoom nañ ñu nañu lan ngeen ñu mës a dajal fii ñaata milliardaire nga fiy gis créé ñu benn emploi mm-hmm. ñaata om politique ñoo doon ay milliardaire ci alalu askan bi en retour. embauché wu ñu benn nit donc nga gis nit am alalam. Mm-hmm. di ko investir man à Guédiawaye ñaata cas sociaux laa doon am di ko ko soumettre. mais ñooñu man moment boobu maanaam liggéeyul ma ak moom sax mais dama xam ne donc euh, mu ngi def ay action sociale man nit ñi bu ñu ma sollicité. samay connaissance laay sollicité. mais parle-nous un peu ci seen coalition bi. Mhm. Euh, yow ak Bougane la ak ñan ak ñan ak eston bi ci yan projet ngeen nekk. waaw xam nga ñun euh, coalition bi trente formation politique moo ci nekk. Mhm. démb ñu am adhésion wu trois mouvements. muy kon à ce jour ma toog nii on a 33 euh, maanaam formation politique dans la coalition. gëm sa bopp au niveau national. léegi mu nekk wenn coalition boo xam ni tey jii nii maanaam ñun euh, nawuñu beneen coalition nawuñu doolewu benn coalition comprendre nga donc. foofu laa bëggoon ñëw aussi est-ce que 33 mouvement yi ci nekk. yëpp hmm. am nañ doole par rapport ak ñeneen ñi ba peut li ngeen ci soxla mën ngeen ko ci am. satisfaction bi à 100 pour cent. mais mais mais mais yéen récemment gis ngeen tournée yu buggaan def gis ngeen écho yi tibb sa tànk tibb tànk. gis ngeen maanaam opération tibb tànk yàggul campagne bi. Eh, mais est-ce que cela justifie que war ngeen mën a am li ngeen bëgg. no absolument xam nga sànq moom maa la ko juñ ci biir waxtaan cest à ko tey jii nii ñun duñu nax suñu bopp. duñu nax suñu bopp parce que fi ñu jëm xam nañ ne mbër bi ñuy bëril borom doole la. Hmm. ndax moom la yàlla dénk nguur. donc kon ñun duñu nax suñu bopp lépp lu ñuy liggéey dañ ciy liggéey li nga xam dañ ciy teg sunu loxo xam ne loolu ñuy jëmale feneen benn étape. yóbbu ñu ci beneen étape mais nag attention système bi ñuy wax encore une fois ñun mouvement citoyen ñoo koy changé mais parti politique bu leen wax ne dafay changé système bi mu ngi nax boppam. d'accord Abou mbay laa dalaloon tey mu nekk président bu mouvement ci Fal Macky comme nag voilà ñu ngi ci cëppaandaw gi. Hmm. damay daal di tënk rek ak sama question bu mujj. Hmm. comme yaa ngi ci ginnaaw président Bougane Gueye Dany léegi est que du wàññi sa doole ci présidentielle yu 2024 comme ni nga ko waxee da bëgg a nekk président pour changer système bi. Euh, waaw absolument li nga wax c'est c'est important donc je vois que cette question chaque fois day dem di ñëwaat ne moom xam naa ni moom bëgg nga ma nekk président de la république te yàlla dina ko def ci kàttan ak mënam mais du wàññi sama doole am na ñu bëri donc euh, même ba ci sama dugg ci Bougane ñu ñu ngi may critiquer ñu bëri dañ ma bëgg imposer yeewu askan bi noonu mais du noonu c'est-à-dire que nit ki ba ngay dem fenn fi nga xam ni euh, dafay dëppoo ak say aspiration fi nga jëm voilà donc mënuñoo ànd lenn li nga xam ne moom mooy sànq ba léegi je le dis ak euh, waa système bi ñun ñu leen di ŋaañi ba pare may toogaat di àndaat ak ñoom di sëgg te du ma ko def dama bëgg heure bu may xool sénégalais yi may siggi heure bu ma euh, wéetee sama kër moom su ma tëddee mën nelaw. Mm-hmm. voilà donc loolu aussi sénégalais nañ ciy bàyyi xel jàpp ne ñu ngi ci jéego yi nga xam ne yàlla teg nañu ci dynamique boobu noonu te ñu ngi ciy dox ndànk-ndànk à pas sûr et cadencé. ngir soppi jafe-jafe askan bi da doy waar yaa ngi teg teg sa mouvement tuddee ko réccu fal Macky yaa ngi dégg parce que nee nga mag Macky moom moo yeew askan wi waaw ñu tegal la benn coalition ne la yeew askan wi nga lànk na yow doo yeew askan wi dem ca gëm sa bopp gëm sa bopp yow sa bopp nga gëm de waaw mais coalition bu baaxul cest à que kii mooy mooy li ma la rek mooy coalition boobu baaxul sa bopp nga gëm de fi ne yow woo askan wi de sa bopp nga gëm <laughs> doo dégg ñu ne la burdu burdu mboq ah. du mboq ngay xeex ak buur dem di di xarut ak buur ah <laughs> loolu c'est pas logique. ah peut-être waa Yewwi Askan Wi am nañ beneen stratégie bu ñu teg. boo xamante ni mais mais mais anti système cest à dama lay jox benn kii euh, ni ñu koy waxte en France cest à ñun sénégalais wala ñun nit ku ñuul ñoo xamul fu ñu jëm te ñun tamit heure bu ñu bëggee euh, maanaam trahir suñuy promesse wala suñuy conviction rek indi ay lay. déedéet espace euh, politique gu Sénégal c'est difficile <laughs> réalité bi moo may imposé dama la jox exemple kii Marine Le Marine Le Pen moom un anti-système la kon mën nga mhm. jàpp ne France moom moo fay Ousmane Sonko. Mhm. Marine Le Pen mais Marine Le Pen waa droite bi waa PS du mës a ànd ak ñoom parce que moom nee na ñoom ñoo chang ñoom ñoo tax France toll fi mu toll. bu France tollee ci situation bu jafe bii nii ñoom ñoo tax mu ànd ak moom mu daal di taxaw ci ay principe mhm. donc dafa mel na waa tey moom mooy waa droite foofu Ousmane Sonko ne waruma ànd ak waa PS ndax ñoo yàq réew mi. coalition taxaw ne ñoo waa PS ñoo yàq réew ñoo yàq réew mi. Abdou Diouf toog na fi 20 ans lan la fi tabax pont Sénégal 92 bi kese. loolu ba ñu koy ba ñu koy tooñee. donc kon a un moment donné tey jii nii bu ñu bëggee yeesalaat nañu ànd ak mouvement citoyen te mouvement citoyen ñoo ëpp njëriñ. parti politique yi. d' accord mais ci biir coalition Yewwi Askan boobu. Mhm. gis nañ ko tey jii bu dee luy luy yoon rek loo xam ne dañuy xool. Mhm. kan moo war a nekk leader bi. Mhm. Euh, on dire Ousmane Sonko peut être comme Ousmane Sonko moo fa ëpp base li ngay bañ laa lay wax. comme Ousmane Sonko moo fa ëpp base. peut être que mën na ñëw ñu waxtaan ci seen biir. ñoom ñëpp ñu fekki ko fekk si ko ci changer système bi. non change système bi. du yéen da a daw rek. non non non du teel daw c'est-à-dire que euh, gis nga soxna Awa y a une chose gis nga mënoo kiiwal ki nga xam ne maanaam euh, dafa sax ci système bi daf cee juddoo. daf cee maanaam daf cee naan mànd ci gàll ci. <laughs> nga ñëw ne da ngay ànd ak moom ngir changer système bi loolu mënul nekk. Mhm. booy changer système da ngay stan da ngay koy changer ñenn ñi nga xam ne xamuñu luy système bi maanaam ñooñu dañ doon ñàkk di dundee. tey jii nii man am na ay mag ñi nga xam ni. Mm-hmm. ñii ay retraité lañ wala ay ñi nga xam ne ay jeunes lañ mosuñoo dundee ci ay affaire état ñii ay ci privé bi lañ nekk. Mm-hmm. mais ñooñu ñoo mën a change système bi ñoo ñu ngi def ay affaires yoo xam ni ah, parfois samay affiche ñoo koy def ñoo koy fay. wala yenn ñu koy fay. mais y a une loolu mooy changer système bi. mais pas faire la politique politicienne. politique politicienne muy tey nga def calcul ne su ma ànd ak awa ànd ak waajale donc coalition boobu dina dëgër léegi jël samay principe ak ak li ma digoon askan bi teg ko ci suuf ne léegi man sama yoon new ci man daal naa séddoo maire wu Sénégal. waaw loolu laa jiital donc yeewi askan bi seddoo maire wu Sénégal la ñu jiital moo tax ñu def seen calcul yooyu ne diw du bokk diway bokk ak diw ak diw. mais ñoom ñoom ñoom waxuñu kii yee bokk kii yu kii bokkul parce que gis naa benn communiqué bu bu Khalifa Sall def mu ubbil ay port seen ay ubbi nañ seen ay porte. képp koo nit man soo ma ubbilee sa kër da nga may dalal fu ma fu ma bëgg toog ma toog fa. yow est-ce que kër goo xam ne nga génn sax. non du loolu c'est-à-dire que kër goo xam ne boo demee dañ la eh fee a a ah, egg. kër la. Uh-huh. xam nga coalition coalition la. Mm-hmm. maanaam dañ lay xool par rapport ak sa gëdd. te tamit dafa am ñoo xam ne awa c'est-à-dire que politique ñu xam ko am na ñenn ñoo xam ni amuñu base mais seen expertise politique la ñuy utiliser ci coalition yi te pourtant ñoom mën nañ leen jël teg leen ci kaw ñi am base. comme comme sa gi. non non man man j'ai la base. Okay. plus l'expertise politique. d'accord du ma tàgg sama bopp <laughs> voilà. merci beaucoup Abou Mbaye loo ñuy tàggoo. waaw bon di leen jaar bu baax a baax a baax aussi di leen euh, féliciter bu baax donc euh, ñu ngi gis ne yéen a ngi taxaw. di mhm. yee askan bi te aussi vous êtes disponible dans. toute l' actualité. maanaam ci domaine bu nekk. vraiment man je vous lis tous les jours. voilà je vous lis tous les jours du ma commenté nag. voilà donc mais quand même euh, je m'intéresse euh, à cette chaîne là moom mooy comme li ma wax rek donc nga xam ni sama kanam la judo mais macha allah tey jii moom je vous dis bravo je vous dis bravo à toute l'équipe euh, c'est une équipe jeune macha allah disponible merci et rigoureuse vraiment voilà merci c'est gentil jaajëfalaat encore une fois ci sa disponibilité mhm. amoon mbégte partagé ak yow li nga xam ne moom moo di plateau bi. c'est partagé merci beaucoup amee internet de Sunugal 24 Abou Mbaye laa dalaloon tey nekk président bu mouvement Réccu Falmaki moom nag jóge na ci euh, Réccu Falmaki bi mais léegi dafa bokkatu ci ginnaaw Bougane Gueye Dany li mu ñu bañ ko ko wax. <laughs> dafa dem bokkatu ji ci ginnaaw Bougane. wéy leen di ànd ak ñun ci suñu ay programme abonné activer seen cloche de notification.